nekk tête de liste Benno Bokk Yaakaar au niveau de la commune de Fatick mu nekkoon fi aussi tamit en entrée en politique am nekk en 2000 se nekk secretaire général de l'union des jeunes travaillistes libérales de Fatick nekkoon tamit commissaire au comptes au réseau d'appui des jeunes filles de Fatick nekkoon fi tamit membre fondatrice de euh, présidente de l'association des jeunes dames républicaines de Fatick nekkoon conseiller municipal en mille 2014 ñu reconduiraat ko en 2022 mu nekk tey jii nii tamit tête de liste Benno Bokk Yaakaar au niveau de la commune de Fatick soxna Mame Fatou ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, soxna tur bi. ma maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay sama doom. Mm-hmm. Euh, ñu bëggoon a xam kan soxna Mame Fatou Sarr. soxna Mame Fatou yaay la. jigéen buy sëy la nekk ci këram. Mhm. ñu bëggoon a xam lan mooy parcours am bu ñu doon wax tey ci Mame Fatou lan la Mame Fatou mën a wax ci boppam. sama parcours politique wala sama. parcours sa parcours lépp politique comme dans la vie. waaw Fatick maa ngi fi ñëw quatre vingt cinq. Mhm. laa fi ñëw étant jeune fii di jàng ba yàlla may ma fi borom kër sama doom yëpp juddoo fii mhm. waaw alhamdulilah depuis quatre vingt cinq ba léegi maa ngi fii Ndiaye Fatick. waaw. Mhm. ñu bëggoon a xam soxna moom Fatou est-ce que euh, yaa ngi doon xaar sa euh, tànneef fee ci commune président jiital la fii ci commune Fatick est-ce que nekkul loo xam ne nii la bett. bett na ma bett ma parce que lu tax bett ma liggéey naa ko fi liggéey naa ko fi xaar naa ko fi comme li ma koy waxee toujours rek du loo xamante ne. du du man kese maa ko liggéey lu wërsëg bu ñëw si man la mais xaar naa ko te ba bettu ma parce que liggéey naa ko fii ci biir parti bi ci APR ah, même PDS liggéey naa ko président ba PDS jeex ñu génn créé suñu parti muy APR ba léegi maa ngi fii di liggéey ak président Macky Sall. Mm-hmm. waaw nan nga jàngatee tànneef bi. alhamdulilah sant yàlla dama ne rek. Euh, ak RAGEF. Mm-hmm. ñoo nekkoon réseau d'appui des jeunes filles bu fi nekkoon ñu nekkoon ay xale yu jigéen di jàppale la président Macky Sall fu mu jëm rek ñu ànd ak moom ñu dee suñu bopp Baye Fall Macky ñu doon sol ay kawas doon ànd ak moom moo tax euh, lii yëpp daal du lu ma bett daal xam naa ne daal comme ni ko ñëpp mérito mérito naa ko comme tout le monde ñu gis ne fële ca assemblée nekkuwaay bi mm, duñ ne métti méttiw na mais neexut lan moo ndax am nga matuwaay yu war jumtuwaay yu war pour préparer wu psychologiquement fële ca sa dem fële ca. incha allah nit kenn kii nit euh, incha allah bu ma demee. Mhm. dinaa si taxaw te incha allah am naa ñu ma xamante ne ñu ngi may jàppale. Mhm. pour sama taxawaay foofu mu gën a rafet. te lu ma fa demee tamit rek lépp lu ma population wax rek moom laa fa duma ndax duma dew ma fa pour toog di wax waxal sama soxla boobu mm-hmm. soxla askan bi ma fa yóbbu kon lu ma askan bi jox rek incha allah moom laa fay yóbbu moo tax sama taxawaay daal bëgg naa mu rafet fa daal. Mm-hmm. lan moo pour yow lan moo war a nekk rôle député fële ca assemblée à part voter loi yi lu majorité bi buñ soxlaa ñoom ñu appliquer loi yi à part loolu noonu yow lan sa xel lan mooy rôle député fële ci assemblée. rôle député comme député xam nga peuple la fi nekk. mais am na ñoo xam ne ni euh, lu président wax rek loi boobu noonu moom la ñuy voté ñu bëggoon a xam lan à part voter les lan moo nekk war a nekk rôle am ci assemblée. rôle député askan bi. toogal askan bi lu askan bi bëgg nga doxal ko ci loolu lu la askan bi wax nga xam ne ne lii tegu na si yoon wax bu yenu maanaa la te ñu mu nekk loo xamante ne lu leen di jëriñ la ñoom peuple bi ñu ñu dis ma ko loolu moo ba dem taxawal leen ko fa incha allah waaw. am na solo lool ci moom day gën a defar day gën a dëgëral. toogaayam parce que fu mu toll nii majorité la war a am ndax mu liggéey eggale ay projet am ndax président visionnaire la mu am projet mi ngi koy defar kon dañ ko foo war a am toogaay bu dëgër am majorité bu ko mën a eggale ay projet am te incha allah gëm naa ne dina ko am mànkoo rek mànkoo rek ñëpp mànkoo jàppale ko rek daal di voté massivement rek président mën a am majorité incha allah. taxawu leen jeunesse Fatick parce que man tam campagne bi yëpp bu may wax jeunesse bi laay waxal ak fami jeunesse bi taxawu leen rek seen bëgg-bëgg. ñu dis ma ko rek wax ma ko rek ma taxaw leen ndax ndaw moo yor réew ñoom ñooy avenir u ëllëg kon dinaa leen fa taxawul bu baax a baax a baax ñu jàppale leen ma ndaw nee naa la moo yor réew xale moo avenir kon ñu taxawu leen rek taxawu leen si njàng taxawu leen ci ay formation taxawu leen si lépp waaw. ban oppos nga fi gis man de gisuma leen fi yeewu moom gis gisuma ko fi fii de ah man de fii Benno Bokk Yaakaar laa fi gis gisuma fi yeewu fen gisaguma leen de fii incha allah dinañ taxaw président de la république ñoo ngi def suñuy porte à porte yi ñu ngi def porte à porte man de saa yu ma xëyee dugg si oto bi ànd ak sama staff dugg di waxtaan ak mag ñi di waxtaan ak ndaw ñi te fu ñu ñi xëyee tamit ñëw seet si ma ne ma incha allah ñu seen ginnaaw waaw. ñu gis ne campagne yi tey lay jeex meeting de collectif bi tey lay tey tey tey lay nekk ndax seen xel dal na instant yi nii ci euh, gagné fële majorité bi fële ndax seen xel dal na surtout fii ci Fatick bi ngeen xam ne ni yow moom nga représenté ci au niveau de la commune. waaw baax sama xel dal na bu baax a baax a baax ñun kay. Mhm. gagné bi mooy incha allah dina am xam nga lu bëgg. Mhm. taux bi élevé loolu lañ bëgg pourcentage bu jóg ci kaw. président am si lu kawe njortam loolu la ñuy wax kenn a incha allah moom Benno Bokk Yaakaar moom yàlla dina ko fa may ndam. ndam ci pourcentage. bu bëri. ñii ñu ngi naan soixante quinze ñii ne quatre quinze pour cent. non moom tuuti na. ah te opposition bi nekk fii ci su ma fi opposition. opposant am fii. fii président fief président Macky Sall la Macky moom moom fii yàlla moo ko ko may. dañu dëkk boo xamante ne président fii la yeewoo kooku dafa neex ndam la. ñu gis ne euh, temps yi nii ralliement yi mu ngi bëri ñu gis ki nga xam ne nii mooy professeur Mary Teuw nekkoon si yéen tey mu toog fële na leen lancer appel pour que opposition pour que nit ñi voté pour opposition bi yeewu wàllu loolu noonu lan moo si sa xalaat. kooku kooku man duma wax sax si waxam. ndax président koo xamante ngay liggéey doomu aadama ñaata at yàlla mu musoo koo sànni xeer nga di ko tagg di ko gërëm ah nga xëy suba nga ne danga koo bàyyi moom bëggoon na nekk maire Saint-Louis mais yàlla sottalu ko mu lu ne xëy na peut-être yooyu ñëw ko kii ku mécontent la rek mais dara loolu mu woote nag du tax mooy incha allahu di nga ma fi woowaat laaj ma majorité président dina ko am assemblée incha allah. ngeen foog ne euh, ci yow ci sa xalaat yoo au niveau de Fatick ñuy gis na jeunes yi dañuy des fois dañuy révolté wu di takk brassard di revendiquer au niveau des leaders de Fatick seen euh, ay liggéey yoo xam ne nii dañ leen ko digoon te mënuñ fexe ba mënul mat leaders yi nekk fii ñu ngi góorgóorlu de ñu ngi jàppale ndaw yi xëy na lépp daa matul euh, ndànk ndànk rek incha allah ñëpp dina kii looloo waral nag ñu war a may président majorité soo amee majorité incha allah liggéey bi gën a dugg fii Fatick ndaw yi nañ kontaan bu soobee yàlla. ñu delluwaat ci assemblée tey jii nii une fois élu buñ demee ci assemblée ba est-ce que yow pare nga pour voter bépp loi boo xam ne nii arrangé na mu arrangé wala mu bañ a arrangé jeunesse bi. lu déggoo mu sànq nee naa la lu arrangé jeunesse bi lu ma jeunesse bi wax. muy nga xamante ne loolu moo leen di jëmale kanam ci lay taxaw incha allah. ban appel ngay am pour lancer. jeunesse du ma wax jeunesse faticoise mais jeunesse sénégalaise en particulier ban appel nga leen di lancer pour ñu mun a voter massivement couleur Benno Bokk Yaakaar ñu taxaw ñu jàpp te xam ne ne président jeunesse bi la fi nekkal nañ jàpp rek voter massivement te gëm naa ne jeunesse bi nañ dinañ voter massivement man gëm naa loolu incha allah ma leen di lancé appel ñu jàppale président Macky Sall te ndaw la comme ñoom jeune la comme ñoom buñ ko mayee chance mu mu mu mu siège assemblée mu mu am majorité assemblée incha allah soobee yàlla jeunesse bi dinañ si kontaan dinañ si bénéficier wu. pour yow réalisation yi son excellence jot a def war na ko mën a may euh, fële bu baax réalisation macha allah tubaarkàlla réalisation yaa ngi fi xale yaa ngi fii ci pavé bi di liggéey lépp mënul mot mais ndànk-ndànk rek dina ñëw président fatit moo ko tax a jóg Sénégal a ko tax a jóg mais Fatick ci la bokk. ñu ngi jàppale ndaw fa te leader itam ñu ngi def lu ñu mën dina baax rek incha allah. ñu bàyyi la nga tàggatoo lancer waale ba appel jeunesse faticoise bi. ñëpp laay woo du fat du jeunes yi rek di woo femmes yi di woo jeunes yi di woo sages yi di woo ñëpp ñu génn dimanche incha allah teel a dugg ci kër yi teel a voté ji dem toog ci nawet lañ nekk. buñ toog ne ngoon laay xaar mën na taw dootoo génn nañu jóg ñun ñii taal suñuy oto dugg si kër yi dem génnee nit ñi ñu dem voté massivement balaa 18 ñu joxe résultat ñu ne ah président gagné na ci Fatick incha allah gagné Sénégal gépp sax incha allah. lan ngay wax ci Mindiss TV bi waaw di kontaan ndax gaju mii dama ànd ak moom depuis 2000 xëy na moom 98 la ci dugg mais 2000 ba ma duggee fa ko fekk may ànd ak moom. ñu nekk si boobu ba léegi waaw kon moo tax ma ne li ma am ni chance la parce que du man kese maa ko miir ñi fi nekk bari nañ moom man ak moom dañoo ànd waaw dañoo ànd di ànd ak président fu ne un an yi fi président defoon di mille un mois yi mu fi defoon ñu dem àll bi yëpp man ak moom ñoo ko ànd buñ bokkul oto beneen yoon oto Pape joob lay dugg kon sant naa lii lii ko lii mu commencé nii yàlla na toog ba mu doon télé bu mag a mag a mag a mag incha allah ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que jàmbaar la ba pare ñu bokk mairie bi may conseil municipal moom mu nekk agent fii municipal kon sant naa ko gërëm naa ko di ko ñaanal projet bi yàlla antul ko ko ba mu am si lu kawe njortam incha allah. waaw chers internautes c'était tout pour votre émission Mindis nay leer ñu leen di jox dig daje beneen yoon ci seen beneen numéro Mindis nay leer di sant di gërëm kii nga xam ne nii mooy caméraman bi suñ technicien bi di man Mansour Diallo di sant di gërëm suñu PDG. Ousmane Ndour Gadio ki nga xam ne ni saa émission amee du nelaw du def dara day def tout pour que émission bi jaar yoon di ko sant di ko gërëm chers internautes ñu ngi leen di jox dëkk daje ba beneen yoon incha allah.